mon éminent confrère maître Khoureychi Ba mi ngi ñëw donc euh, def leen faram-fàcce si euh, voilà si si contentieux bi si si moyen yi. Euh, merci bien man du ma wax ci bismillah rahman rahim salaamaaleykum wa en réalité je pense que wax nañu dans les grandes lignes mbir yi ni mu demee. démb biig la ñu waroon dajale ak presse bi malheureusement conditions yi wax nañ leen lu tax on n'a pas pu communiquer en groupe avec la presse de sorte que je que man maa fa ne woon euh, communication bi ñu def coow li bare na c'est de bon augure baax na lu normal la parce mbir bi dëkk bi ñu nekk ubbul kenn ni monsieur le président de la république Macky Sall président sortant bilan immatériel bi am na lu ñuy wax passif humanitaire parce que fooyee nañu trop liberté citoyen yi de sorte que affaire justice dafa dem ba nit ñi impré imprégné nañ ci bu baax moo yu bare xam nañ ko vocable yi xam nañ ko procédure yi sax ñu koy xam mais droit bu ñu fàttee mukk ni droit euh, science la science juridique te droit da ngay da nga koy jàng te Sénégal article premier suñu constitution suñu loi fondamentale dafa ne français mooy langue officielle bi droit français lañ koy jàngee te ku déggul français mënoo dégg droit bi ñuy jàng ñun mën nga dégg français nag ba am ci lijaasa bu mënti nekk te jàngu science juridique ak li ñuy wax légistique kooku c'est du domaine scientifique beneen affaire la donc il faudrait aussi que nit ñi comprendre ni am na débat yi nga xam ni mën nañ ci bañ a sore parce que bokkul ci màndu bokkul ci ragal yàlla bokkul ci fulla ak ci fayda parce que kilifa buy toog ñu koy déglu ñu wax li nga xam ne wax bi nga xamu ci dara dafa xaw yéeme Sénégal nag moo demee noonu da ngay dem hôpital gis famille bu caaxle lool ndax am malade professeur bi koy suivre bi suivre malaat bi génn nekk kàngam ci domaine am loolu muy faj moo ci mën ci àdduna mais da si nga xam ni demuñu sax l'école te di ko wax feebar bi ni nga koy fajee du noonu da gis waa ji mer sax xataraay démb dund nañu lu mel noonu parce que loi du caaxaan avocat non plus euh, doon na li nga xam ni il faut pas ñu koy foyee parce que ku néewal doole avocat tey dafa fekk da nga xamul luy ñëw ci kanam ba ñun suñuy biir sax dañuy soxlawante ñëpp soxla avocat avocat dañ ko war a ormal tey dëkk boo dem da ngay gis tey nga nekk ci nguur gi suba nga soxla avocat walla suba nga nekk ci opposition soxla avocat suba yow sa bopp yaa ngi ci leneen. àdduna dafa gudd tànk euh, dugg ci détails yi matu ko lu nekk dégg nañ ko man personnellement mais je pense que boo nekkee ci liggéey def ci ay at gis lu bare euh, am na nga xam du la mën yëngal bien que c'est un peu injuste gis nga xam ni jàngam sorewul dafa am benn lecture linéaire ci texte de loi yi xamul ci dara def maanaam su conclusion mu ngi nii kii diw ci lii ak lii la nekk euh, bu ñu demee récemment Ziguinchor le 6 demoon plaider ji au mois de d'octobre ñu dem visite de courtoisie kër suñu client ñu toggal ñu añ bu neex avant ñu jël avion ñibbisi euh, il fallait ñu waxtaan Sénégal yu bari dañ koy nëbb surtout bu ngeen bokkee famille mais dafa fekk euh, Ousmane Sonko suma client. suma jarbaat àqan la te yaayam euh, waajuram bu jigéen xam na loolu boo demee ci Bawol Fabi Langar Ngom douzième teeñ di Bawol suñu maamaati maam direct la ci lu wóor suma côté yaay ak moom côté yaayam amul werante mais kooku loolu mooy deret deret mënul weesu loolu mais dañ koy nëb parce que soxlawul Sénégal koo fi gis man yéen ñi taxaw ay mboq ngi fi kilifa yi toog ni ay mboq ngi fii dañuy dem ci cérémonie familiale rek ci leneen ngay door a xam ah diw sama mbokk la nga dem Tiwaawan ñu ne fii sa kër la nga dem Tiwaawan ñu ne mais fii sa kër la dem Yoof bi laaj ñu la fii sa kër la ba ci shérif yi fii ñëpp mbokk lañ ku ko xamul rek da nax sa bopp moo tax lu gën a bon mooy gën tuumaal nit nga kii de dafay trahir kii wala daf koy war wala mu koy complot mais c'est c'est minable te loolu aussi yàlla da koy faj parce que loolu bàkkaar bu gën a mag mënu ko weesu surtout nag boo ko tegulee ci xam-xam xam-xam bi mooy article L29 L30 ko lire c'est difficile à lire parce que technique technique bi ñu def ñëpp xam nañu loi bi code électoral bi ñu de changé 2021 gaa ñi dugal nañ ci ay pièges pièges yi nag ci loolu la pièges yi ci loolu la mën nga jël ay professeur universitaire teg leen fii duñ la wax li xew parce que duñ compréhension bi day wutee mais li wóor rek àdduna suñu kanam lépp dana leer li leen wax nag ci éligibilité Ousmane Sonko lu am la incha allah bon communication dafa metti c'est vrai Euh, souvent mën na am dérapage bu ndaw mais pour de sachant du dérapage parce que dañu lay expliquer te lu jot rek yombaa daañu expliquer ba mu leer nañ amoon na fi débat troisième mandat lu nekk la ñu wax constitutionnaliste yu gën a mag gis nañu ku ki nga xam ne bakkanam la ci tegoon ni président dafa war a am droit troisième mandat man dama mës a wax nii nañ ko excuser parce que ñun bi ñuy def droit droit da nga def première année deuxième année troisième année quatrième année ki di fay toog ñoo defandoo droit mais ñooñu di wax xam nañu nu ñu def première année ba deuxième année quatre ans la ñu def pour dem troisième année ils ont fait ils sont ah. attends donc donc yooyu dafay feeñ nag ci nit ki parce que loolu c'est important jàng bi du caaxaan fu ma bëggoon jeexalee rek mooy mbiru conseil constitutionnel nekk na juridiction bi nga xam ni mën nañu wax mooy clé de voûte juridiction yi nekk Sénégal yëpp ñun amuñu cour constitutionnelle bu ñu ko amoon lépp dana neex parce que day doon tribunal mais fii c'est d'abord une politique mais ñi fa nekk ils ont tout notre respect kenn du leen ñàkkal fayda parce que caaxaan du ko yóbbu juge juge ñu respecté lañu te xam nañu nii euh, tey li ñu def nii li ñu statué tey refuser examiner candidature euh, Ousmane Sonko du décision de du décision xëy na modalité yi mu demee sax neexul mandataire bi mais li wóor mooy da dañu basé sur l'incomplétude du dossier maanaam dossier bi matul bi ñu examiner gis nañu ni parrainage bi duñ ko contrôler parce que demee na nii ak nii mais le 13 bii di ñëw ci lañ ubbi phase contentieux bi communiqué bi ñu leen jox décidé nañu dañuy def recours te la te ñu ngi xaar donc recours bi ñoom ñu def notification rejet bi ak explication lu tax ci lan la fondé wu en ce moment recours dina am te mën nañu yaakaar ni euh, juge yi fa nekk juge yu mag la ñu on confiance en eux te incha ils vont le droit wasalaam loolu laa amoon lu may wax jërëjëf. léegi ñu ngi remercier suñu excellent confrère Cheikh Khoureyssi Ba si maanaam euh, liggéey bi ñëpp xam nañ ne que ñu si gën a si te ñu si gën am.